Wa en fait euh, man euh, dama dekk ci biir quartier bi juddoo fi euh, vraiment ma gis ne quartier bi lu bari des na fi ma ànd ak samay jigen yi dekk ci biir quartier bi ma gis ne souvent suñuy tok dañuy am problème pour tok ma ne pourquoi pas vraiment avec Azir ensemble pour le développement de Malicounda ñu jox leen ay seize fo xamantene ne vraiment dootuñu soxla di luye ji wala di di di di abbi au moins dañuy autonome ci seen i seen i seen besoins ci côté seize yooyu ko Wow, man dama leen di wax dugg leen si biir commune de Malicounda ah Malicounda y a beaucoup de choses à faire Hein? boo demee si ay côté piste rurale pour relier les villages lu bëri côté courant je pense que lu bëri des na ah fii ngay gis ak Carrefour je donne un exemple si ak Carrefour Nous ñun suñu bopp dañoo xeex ba ñu am courant D'ailleurs il y a courant privé la dañ ay ligne privée nga fi ligne privée nga fi gis moo fi dugg finalement ñuy xeex di xeex mais peut ben ligne privée dugg si biir euh, dugg si kii euh, benn concessionnaire dugg fii

pour faire du problème la case de santé c'est limité peut-être euh, peut si si si kii que peut si village mag poste de santé mais village villages gën a xam vraiment ay cas de santé Je léegi man je si de population malikunda effectivement ndax hein? si de question di nga xam ne vraiment lu bëree bëri des na à faire au niveau te Malicounda dafa nekk benn benn benn pôle bi nga xam benn benn benn kii bi nga xamante fu mu toll nii euh, euh, ñëpp ko soxla kon aujourd'hui am na infrastructure yoo xamante ne war na dox si war na am si biir commune de Malicounda. waaw bon en fait euh, bi peut être loolu maire laaj ko maire ah laaj ko mais su seet que ne man damaa ne séddale séddale am na nu mu doon am na ko doon séddale ah. ah ku nekk war na si mën a am as tuut peut-être ah même su bëriwul te gëm naa ne ba moytul budget Malicounda ah xaw ma xaw ma peut-être nu mu toll de mais su see que ne euh, gëm naa ne ah, am na loo xam suñ ko séddalewul bu baax euh, dina am ñoo xam dinañ gis seen bopp. man daal li ma la bëgg a wax may que Malicounda des na lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri par rapport ak fi ma visité si biir commune de Malicounda. man doomu dëkk bi laa man doomu dëkk bi laa incha allah 2019 Agir ensemble pour le développement de Malicounda va présenter élection locale. loolu dama koy leb mais incha allah ñu ngi liggéey ak ay nit mag. ba bu jotee dinañ la oo fii ñu sottil la ko lenn da laa lay wax dinaa la ko wax mu leer du ma mës a bokk du ma mës a nekk si ginnaaw Maguette Sène bu leer nga bëgg non amuñu problème Maguette Sène je le respecte beaucoup euh, maire commune bi la doomu dëkk bi la defuma dara mais man ak moom bokkuñu conviction lu lu ñu xalaat si biir commune de Malicounda en tout cas bokkuñu nu ñu biir commune de Malicounda